dañuy ñëw rek ci suñu tafsir waaye balaa loolu ñu fàttali suñu bésu daara maam Khalifa muy journée daara Sëñ kër si nekk euh, samedi 18 avril ca Tiwaawoon ca buntu daara ji suba gi la nag 9h 10 allah ñu commencé waxtaan euh, bu ñu julleeti sibaar seddalee teraanga yi kaddu yi daal añ ñëpp yeeweeku waaye nag bis boobu am na borom mooy Bokar Ndiaye. bés bi bésama bésu ay bokkam la bésu ay xaritam la bésu ay wóllëreem la naka jekk moom lañ ko jox te daara du ci tebbeeku ci kàttanu yàlla ak mbaaxam boo defee nag ñu ngi invité ñëpp di ko bàyyiloo xel ñëpp bés boobu di ñaan ñëpp ñëw teewee ko dañuy dem ci sunu tafsir ñu ngi nekkoon ci sën simo alal xurtuum lépp lu mu mën a doon nga di ko def muy lu bon bés dina ñëw ñépp ni nekk mbon baaxul kii moo daan def nàngam dafa am bés ku ñuy wax Pape Jaxate sama wóllëre la mu ngi dëkk Thiès ñu ànd ma ak moom nag jaar ci fukki buntu defe naa fi docteur Ndiaye di liggéeyee docteur njaay gynécologue la benn fa lañ génne walla ma doon dem balaa bi mu am mu am fu may wan waaye yooyu yëpp amul solo li may bëgg a nettali rekk mu am solo saaliw ñu dox ba mu yàgg am koy traversé di darngu ku jigéen ñu wàññi ba mu darngu ba jàll Pape Jaxate ne ma xam nga kii ma ne ko déedéet mu ne ma xam nga lii lu ko ko te xurtóom mu ngi noonu sa simu alal xurtóomi daa lay fiiri mu ne ma xam nga lu ko def ma ne ko déedéet mu ne ma kii ci baar yi la daan nekk di jaay bopp fa lañ ko dóoree ba mel nii day darngu léegi sa na si mu alal xurtoo ngi noonu mbon ku ci nekk balaa jeex nga am màndarga wuyu boo gis ak bandi boo gis am na màndarga paaka buñ ko jam baa jaas juñ ko jam baa yet wuñ ko dóor biteel buñ ko jam sa na si mu alal nekk ci mbon ti amoo benn màndarga jamais maa la ko wax lu dañ mukk sa nit si moo alal xurtum moo tax mbaax rekk am solo ndoy nag mu may wax ne ma waxoon nga démb saalix ne mu def commerce waaye dañ koy leb te buñ ko lebee te fayuñu ko mu daanu ma ne ko xamoo saaliw kon kii ma ne ko lewet gi fii la yem waaw waaye xamoo jikko mm-hmm. ah oui am na ñoo xam ne seen lawet biti la rek ah, seen <laughs> lewet biti la rek Fabrice Fabrice na nga def in God we trust yaa ma ko jàngaloon de anglais bu ma paree nga joxaanu beneen cours dama bëgg a dem Amérique moo tax gis nga bon ndooy kenn du ci nekk bàyyiwoo ko te doo xëy am màndarga bandi boo gis am na màndarga benn ñu jam ko baa ñu xaañ ko baa ñu jam ko xottu biteel baa ñu dóor ko jaasi il faut mu am xotturum boobu waaw cicatrice pour Fabrice man koo dégg parce que moom tubaab la waaw ay tubaab buy suppu kànja la léegi-léegi mu ni mu dugal ci olof yoo xam ne maa ngi benn paa sëriñ nee na ma seen waajoo ni mu neexee man duma raw mukk suba teel moom yi olof yi mu ciy dugal moo dàq sax tubaab yi léegi léeg mu dóor boo xam ne te kat kilifa la bu mag sëriñ ci sëriñ su mag si la waaye moom looloo ko ci neex ah parce que dafa am ñoo xam dañuy stressé wu surtout kilifa diine yi ñu ci bëri dañuy stressé wu surtout fi jamono toll xale yi di leen saaga ci internet beeg di leen wax lu nekk ak nit ñi dëkkal leen fu ne dañuy jaaxle. te amatuñ ko leen di défendre parce que bu njëkk mag ñi dañoo amoon ay pànk dañoo amoon ay pànk tele bu ne ñu ni diw mooy pànku tele ba ay boo seen TV Fabrice moomu moytu ko cey boo laalee sàngam diw moytu ko famille sàngam moytul diw dañ daan am ay pànk yu mën a defante mais léegi amul léegi am parce que boo nekkee pànku seen TV bu problème amee est-ce que Bougane dana la defendre est-ce que dana la boot rogganti la c'est ça est-ce que boo dokkee banque banku tariixa bi soo amee problème est-ce que danañ la rogganti soo ko amalee daayira ba est-ce que soo ko amalee jàkka ja est-ce que mais bu jëkk mag ñi dañ daan am pànk mas na am lu xew Fabrice bàyyi Bougane mi papaam Serigne Abdoul Aziz Al Amine mbir ma ba mu xewee ñu dégtal ko ca benn kàddu mu ree ne waa baax na ci nag kër gu ne daa war a am pànk ku mel ni baax na fi mu waxal ko benn njaboot bañ ko ko dégtali dafa ree ne kër gu war naa am pànk ndax pànk dana tax ñu bàyyi xel kër xanaa xamoo ne Serigne Abdou moo taxoon ñu bari bàyyi xel Tiwaawoon ba ci politique bi bu daraan xew buy wax day dem ak engagement am amul ku yëgul bu dee ci politique bu dee ci diine bu dee ci tariqa ku yëgul ne élément bu ñoo al amin manqué na amul ndax ni mu déterminé woo loolu nag ku nekk pëli pëng moo ko man pëli pëng mooy jéego ñay mooy loo ko sëf mu yóbbu ko mais boo amee looy éviter du baax moo tax góor googu Fabrice da ko intéressé moom ree yomb ko ndax gisul ku ko reeloo mu ne na nag baati olof yi Fabrice di dugal yooyu koy reeloo léegi-léeg mu ne laaxu caaxaan paa bi nee na bu ne laaxu caaxaan rek ma toj nee sama jabar daf ma ni kii bu ma ko xamoon damay dem mu defal la bande mu koy teg yow boo ree rek kii ngay moo la taxaree mais yombul yenent bi amoon na ñaar Fabrice ñu koy reeloo kenn ki mu ngi tudd Norman kenn ki tudd Sooy Batu waaw kay kenn ki tudd kenn ki tudd Sooy Batu Norman dafa xëy amul dépense jabaram laaj ko dépense amul ci ñemewul jabar ji jabar ji ne ko mënumaa dëkk ci leb demal lijjanti Norman ak sooy ba ay xarit lañu duñ teqale ko mii noomaan dafa yeew mu ne sooy ba nañ dem ca luuma jawaay altinay ngaay par exemple seetaan jaayum njaam ma ak xumbaayu marché ba naka lañ yegg rek mu dem ca chef de marché bi ne ko kee ma àndal sama jaam la daf maa miin nag dama la koy jaay nga fay ma ma dem nga jël bu mu xam ne jaay naa ko de daf ma miin ñu d'accord mu jaay sooye ba dem gars yi ñëw jàpp sooye ba mu ne lan la ñu ne ko ki nga àndaloon moo la jaay sa sang la mu ne man duma ma jaam ñu ne ko jaam nga waxoon nañu lii lépp norman dem këram joxe dépense yenint bi xëy di ko laajte ñu toog rek seen ko muy sëliñ sëliñ ñi ñëw te ñoom ñaar ñoo daan ànd mu ñëw nuyu yenint bi yenint bi ne ko waa ana ana sooye ba mu ne ko biatu business naa ko mu ne ko jaay mu ne ko waaw mu ne ko waxal mu ne ko yow yaroo koy fen jaay naa ko boo yéex altine ngaay mu tas nit ñi dem mu ne ko loo ko jaayee mu ne ko cinquante mille mu ne ko ana xaalis mu ne ko joxe naa ci dépense fay bor yi yeneen bi acca gaayu lu waaye am ñu dajalaatu ba mu ëpp cinquante mille ñu jox ko imaamu Ali ak Ababacar ne leen daw leen ngeen négocier jël ko biñ cotisé ba mu ëpp nag mu ni li ëpp nañ ko ko may yenent bi ne ko bul font nit ñi mu ne ko bu ngeen ma ko joxul bu ma baax yaakaatee jaay keneen yonent bi ne koo jaay sa affaire mais yonent bi reeñe ca ree joo xam ni ñu dem jëli sooy ba nag gaayaan ko fitnaal mu nga ñàkk sonn lool Aboubacar ñëw wax ak ñoom ne du jaam xaritama ko jaay waa marché ba tas